bi jaayi xayri ma nabaat ajali laay maskani tubaabaat misras mi bi jaayi xayri ma nabaat asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu nuyoo bi gën a tedd ci nuyoo te moo di nuyoo bi lislaam di asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu di jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi sëriñ Muntaxa Mbàkke xalif général des mourides di ko ñaanal yàlla sunu borom bi subhaanahu wa taala yàggal ko fi lool ca mu ànd ak wér moom ak mbooleem njabootuk sëriñ Tuubaa gi yëpp ak njabootuk lislaam gi yëpp mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki ànd ak ñun seen télévision bi di Touba Monde bi TV lëkkaloog rajo Xassida online Touba Monde bi ñu ngi am loolu mbégte kontaan di dellu siwaat di fas ne ànd ak yéen ni ñu baaxoo ànd ak yéen àndoon nañu ak yéen nag ànd ak Touba ca kanam ci liggéey bu am solo bi nga xam ne ñu ngi koy amal ci wàllu diaspora bi rawati nag ci euh, réewum itali mu mel ne sëriñ Abdul Ahad Mbacke ibnu sëriñ Abibu ginnaaw ay jataay yu am solo yu nga xam ne amaloon nañ ko fii ci euh, ay bis yi ñu génn mu am yéene yi dem ci mbooleem dëkk yi nga xam ne taalibe yi sëriñ Tuubaa yi ñi ngi fi ci biir réewum Italie donte dajal fépp dana jafe waaye am na ci lenn ci ay dëkk yu nga xam ne jot na faa yegg nag ngir fekk si fa mbokki jullit ak mbokki taalibe ya nga xam ne ah ñoo fa nekk nuyoo ñoom saafonte ak ñoom waxtaan ak ñoom waaye soññi leen itam ci liggéey sëriñ Tuubaa bi rawatina ak mooy lépp lu jëm ci tubaa ca kanam mu mel ni kon sëriñ Abdul Ahad Mbacke ibnu sëriñ Abibu yegg si na fi nga xamante ni moom moo di Rome capitalu Italie fekk si fi nag taalibe sëriñ Touba yi nga xam ne ñi ngi ci Touba Rome ngir waxtaan ak ñoom waaye soññi leen ci ñaax leen lépp lu jëm ci liggéey sëriñ tubaa bi ñu gën ko fonk ca gën ko jàpp rawatina lépp lu jëm ci Touba ca kanam bi mu ñëwee fii ci Touba Rome nag fekk na fi ki nga xam ne mooy sëriñ Moustapha Mbacke di imam waaye mu fekk fi itam ki nga xam ne moom mooy sëriñ Moustapha Mbacke Jumaada moom mooy président fédération des daayira yi nga xam ne ñoo nekkee ci Touba Rome muy Serigne Cheikh euh, Touré waaye ak ki nga xamante ni moom mooy ki yore seen kàddu di porte-parole bi di Serigne Ibrahima Diouf ak mbokki taalib yi nga xam ne ñoom la fi fekk euh, waxtaan na ak ñoom saafante na ak euh, ñoom waaye niñ ko waxee itam soññ na leen ci liggéey Serigne Touba bi waaye rawatina ak lépp lu jëm nag ci li nga xam ne moom mooy liggéey bi di tubaa ca kanam mu mel ne itam liggéey bu am solo bi nga xam ne Serigne Abdou Lahad Mbacké mu Serigne Abibou dox na ko liggéey sëriñ Touba a nekkee nga jóg taxaw ko yaatal ko dox ci ca wax ci ci bi gën a dem ca kanam yéene boobu la sëriñ Abdou Lahad Mbacké mu sëriñ Abi bu am ba tax mu def ay jéego dem ci lenn ci ay dëkk yoo xam ne ñi ngi ci Italie noonu ñu ko waxee nag donte yéeneem moo doon fexe ba dajal mboolem dëkk yi ne Italie fépp nga xam ne taalibi sëriñ Touba yi ñi ngi fi mu fekk leen fa waxtaan ak ñoom ci lu jëm ci liggéey bi liggéey bu am solo boobu nag sëriñ Abdou Lahad Mbacké ibnu sëriñ Abibu mi ngi ko ànd ak ku ci mel mel ne Serigne Modou Diouf mi nga xam ne moom moo jiite wàllu communication bi Touba ci kanam ci wàllu diaspora bi waaye mi ngi ànd ci liggéey bi itam ak ku ci mel ne secrétariat bi di Serigne Jong waaye mi ngi ci ànd ak Baye Serigne Mbacke Diop mi nga xam ne moom moo jiite commission de coordination waaye ànd ci ak Serigne Xaasim Diop ak Serigne Abdourahmane Diop waaye bi ñu ñëwee ci Touba Rome noonu ñu ko waxee fekk na fi nag ay mbokki boppam mooy ku ci mel ne Serigne Moustapha Mbacke imam ak Serigne Moustapha Mbacke Jumaada ak yeneen i kilifa yu nga xam ne ñi ngi ci Touba Rome ci liggéey sëriñ Tuubaa bi kon mbokk yi lii mooy benn ci tournée yi nga xam ne sëriñ Abdul Ahad Mbàkke ibnu sëriñ Abibu mi ngi koy def ci réewum itali ci lenn ci dëkk yi nga xam ne taalibe sëriñ Tuubaa yi ña nga fa mu fekki leen fa waxtaan ak ñoom ah soññi leen ñaax leen waaye itam fexe ba mbokk yépp gën a jàpp ci gën a dox ci lu jëm ci liggéey sëriñ Touba bi rawatina ak ci Touba ca kanam niñ ko waxoon ci njëlbeen gàttam muy liggéey boo xam ne nag sëriñ bi yéene na yegg ci mbooleem dëkk yi nga xam ne sénégalais yi ña nga fa donte nag dajal day jafe lool waaye li nga xam ne moom mooy solos jéego yooyu muy dox rek mooy taalibe bu nekk fa nga nekk nga soññiwaat sa bopp ca soññi ña nga xam ne ñoom nga nekkal ngir liggéey sëriñ Touba bi ku ci nekk gën cee dollee jàpp waaye ñu gën euh, dox ngir lañu bëgg rek ci liggéey bi ñoo am ko ni ko borom bëggee muy Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul kon ñi ngi sant bu baax di gërëm Serigne Abdou Lahad Mbacké ci taxawaayam bu am solo boobu waaye itam gërëm bu baax a baax mbokk yooyu nga xam ne ñoom ñoo nekkee ci Touba Rome ci seen taxawaay bi nga xam ne taxaw nañ ko ak dalal gi nga xam ne dalal nañ ko Serigne Abdou Lahad Mbacké ibnu Serigne Abibou ak mbokk yi mu àndaloon kon mbokk yi lii mooy li nga ko àndoon ci ak seen télévision Touba Mbaye Thiam moo féete woon ci kàddu gi ngeen àndoon ci seen mbokkum taalib Modou Assane Ndiaye ci seen télévision Touba Monde bi TV ak rajo Xassida online Touba Monde bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa seen mbokkum taalibe Ibrahima Diouf kenn borom Touba moo leen di nuyu. waaye mu ngi saytu nuyoo yi gën a tedd ak ziar di ko teg ci loxol sëñ Moustapha Mbacke mii xam ne mooy suñu kilifa di sàkk mu tegal na ci wéjuróom bu baax wi fi ñëw tey di sëñ Abdoulaye Lahad mu sëñ Abibu Mbacke waaye di sàkku mu nuyal nu sëñ Cheikh naa mii mu sëñ Jiili mu Cheikh Amadou Fadel mu Cheikh Khadim hmm. ma am tawfeex tey ñu ñëw fii ci ñun tawfeex yooyu bokk ci lii sëñ Mouhamadane wax léegi kàddu yu tedd yu sell yi ne barab bokk na ci njariñ bi rek da doy sëkk ñaari sang yi fi ñëw tey ñu jataayoo loo ak ñoom ndax buñ ko amuloon duñ fi daje te ñoom it xam naa man kër gu ñu dem ndax Cheikh Mouhamadou Mourtala góor yàlla waxoon na ni daleen fonk daayee bi ndax néew na ci yéen ko jaral sëriñ bi mu jóg waaye néew naa fi ngeen daje ba jóge fa te sëriñ bi du fa tey jii ñaari liggéey teewandoo fii te lépp rek ci sëriñ bi la bi ci jiitu mooy bii may jotal waaye dama koy tënk ngir danoo am kilifa boo xam ne dafa jóge ba Sénégal ni ma ko leerale ci whatsapp bi avant muy sëriñ Abdoulaye Lahad nii mu Abibu jóge Sénégal ci ndigalal ak Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne tey mooy Cheikhul Khadim ci kaw suuf alako suñu borom yàggal lool jóge fa ci ndigalu sëriñ Tàkko mu Cheikh Ahmad Fadal sëriñ Abibu mu Cheikh Ahmad Fadal ñoom ñoo ñi ñoo jiite liggéey boobu ñuy wax Nuuru Daarayni Touba Ca Kanam yàlla dogal liggéey boobu yi a si woon tàbb si woon na ci dëkk bi waaye boobu kenn ci kilifa yi muy sëriñ Mbakke moo fi indi woon ñu àndoon ko ak moom waaye yàlla dogal liggéey boobu bi moom doonatul liggéey bu ñu présenté Touba Ca képp ku yoon nga ñor teg nga sa teg nga sa ci seen jëf bërki dem rek ci mujj Cheikh Mouhamadou Mountakha Cheikh Khadim di teg tegu xeer wi joxe nañ ci téeméeri million tàmbalee ci suñu liggéey kon loolu doonatul lu ñuy présenté doonatul lu ñuy propagande waaye moo ñu ñu nemmi ku ne jéego yi Touba ca kanam di amal ci àdduna hmm. te wax dëgg fa yàlla état bi ci lool romb yi wax dëgg fa yàlla euh, fësaguñ ci nan ci war a fëse te romb bokk ci dëkk yi gën a yaakaaru ci dëkk yi ndax ay jàmbare borom Touba fi nekk looloo tax sëriñ bi jógal boppam ñëw ngir bëgg soppi yoon wala liggéey bi jaaroon ba tàbbi si ci dëkk bi ci gan mooy ñëw gaaral ko daayira bi teg ko ci loxol jëwriñu kër Cheikh Xadim yi nga xamante ne ñoo liggéey bi di ko doxal kër bu toll nii ku ko fi wutal Sëriñ Tuubaa yoral fi Sëriñ Tuubaa liggéey bu toll nii war nga caa mën a boole liggéey ko bii looloo tax sëriñ bi ñëw tey kenn indiwu ko fi suñu sambakki mii ndax moo koy juróom bokk Sëriñ Habibu waaye ñëw fi ngir seet si ko fi daa ñëw ngir liggéey kon xam naa ne sëriñ Cheikh Touré ndigal li mu fi bàyyi mu jëm ci mbooloo mi mooy nanu teewlu sëriñ bi sëriñ bi dinañ wax li mu bëgg bu ko defee danañ ko xool nan lañ koy gàddoo fas yéene roy Cheikh Ibra nam àndoon Cheikh Khadim rek sëriñ bi bu nee weex na mën a tàll bu nee ñuul na mën a kukk kon nanu xam ne yoonu tay wii nooru daari ne Touba ca kanam dikk fii ci bi doonatul yoonu dañuy ñëw di leen ko publicité wala di leen ko di déedéet ay ndigal lay ñëw jóge ca mag ña te yàggul dara mel na ne seen tàkk toog na fii joxe ci moom mii mu jógaat ñëw ngir fedd li ndigal loolu kon jàpp naa ne fi mu ne nii loolu jot nañu def tax taxaw seddu fexe ba <laughs> jooyal suñu yitte jëpp ngir lenn rek rek rek rek te man de maa ngi seere sama digg borom Tuubaa ne man Ibrahima lii may wax nag man la concerné barke maam Cerno Ibrahima Faati suñu wootoon ak sabar boo xam ne dañ koy tëgg ngir Tuubaa ca ak sabar boo xam ne dañ koy tëgg ngir ngir jublu ca Tuubaa ca kanam war nañ seen Tuubaa naan te fecc ba sama xam barke maam Cerno Ibrahima xoolatuma la muy def waaye fa mu jëm ak ak ak la tax ñu woote lay xool te loolu ci Cheikh Mouhamadou Mountakha laa koy royee danañ deltu tuuti ma fàttali leen lii may wax quatre-vingt-quatorze la jamono boobu isu tarxia meloon ne ku am ak réeroo ak Serigne Moustapha Saliou Serigne Mountakha ànd ak ñoom yóbbu leen ci Serigne Saliou am ngan bu mu doon amal njaareem mel ne ku leen di daan jéggulu ci Serigne am ay nit yu yëkkati ay kàddu ne aatu dafay am ak sëñ Moussa Saliou ay jafe-jafe waaye mel na sëñ Mountakha da ko daa far aatu sëñ Mountakha daal di leeral ndax du koy tontu daal di leeral yi kàddu yëkkati kàddu ne man de mbooloo mu ànd saytootuma seenu doxe ka tax nu ànd rek laa leen jàpp ni sëriñ waaw moo tax ma ne kon mbooloo lii ñu jóg di ko woote doon na ci sëkk benn baat rek tax tey ku ne dugg ci te fas yéenee liggéey Cheikh Ahmad Cheikh Ahmadou Khadim muy Tuubaa ca kanam kon xam li ci des sëriñ bi ko leeral. muy jël di jël di jël ba mos na ko mu ne ma déedéet ma ne ko na ko mu ne ma xaw waaye lu ma yëkkati ma ne ma la naa xobu sànn wala ma la naa xeebu sànn ma ne ko soxla ko te yàgg ne suñu doom ne ma des ma dikkaat ma suñu doom ne ma kaay ma def ak yow lu gën a gaaw ndax yow tey soxla soxla ñu la boole ba dikk na bi gërëm la gërëm lu gërëm ne mboolem lu ma ko jiwloon ci yow def na ko def na ko kaay kon nag da ngay dem ka nekk ca bunt yi yow maa ngi cinq boo demee nga laaj ci teeb ñëw jox ko foofu eh. ne ko bunt ba am na ko bind suñu doom dafa bind ne fii dee su delloo am laaj aksi kay def waaye ku am xuus ba aksi loolu laaj nañ la ko jox bu kenn delloo la sëñ bi ne la ma demee nag ma laaj ci ceeb bi ne ko jox ma ceeb bi nee na ma ne ma ah yow nag kat yaa ngi ko xëy ma li li tànn lépp ñoo di ma laaj ceeb ngir ku ne ñëw na fi waaye da ko ubbil mu jël waaye kenn mosuma la tey mais man de ah man de tey bi laa soxla. cëy si man man de tey bi moom sëñ moo ko tey dafa dinaa jënd tey bi loolu accord nañ dem ba ci kër gi de mais naa ñëw suñu loxo. te ñëwee noonu nag mu ne ko jaar bii nag moom dafa maa jaaxal dafa dafa ñëw ma ubbil ko mu jël mu des ne ma naa ko def tey fii dama mosuma la suma la tey mm. mais suñu loxo nag laa mu bindoon dafa rëy mu ne ko lan muy muy rek mu doon bindoon ne des fa tey loo xam rek mu ne ko dañu dem wax mu ne ko nga jox ko cey jëlawa bi mooy xasaay noor bi fukki at yi wasaf sax loolu yaa ko xaw buñ ko xëy la xëy asaar bi nga xaw a sax su foofu la ko bindee kon jaar njariñ rek na alaal rek sëñ bi yàlla def na ko kon nag buñ dee ay taalibeem loolu amul ci moom la te moom kat du sieb laa doxoon ne sëñ bi nee woon ñu ñëwee bu fekkoon lu taw ñu moo ko daan suñu yonente suuf si daan nañ wax képp doy sëkk pas-pas ci moom ci maanaam ci moom li bëgg kon nag ñun ñu fekk ak njabootam dëkk ci ab dëkkam kon moom lu amul saytuwaat suñu ak possible la suñu ñàkk a jóg waaye war na koo mën a yëg-yëg boobu dong nag moo tax a taxawal Touba ci kanam weesu wut di traité saytuwaat yu dëkk saytuwaat gis ne dëkku saytuwaat yu mel yàlla na ci moom lu ëpp dëkk di am fële ci wàllu gis waaye wëpp di ci benn dëkk ñu gis ne kon loolu nañoo taxawal mbooloo moo xam ne loolu buñ àndee dañ ci bëgg daañu ko def mhm. ku ne xam na ne doole jël bi yëpp ci leen lu ñuy nit kenn kenn ku ne luñ koy nigee buñ la boole suñ suñ doole te nosu te teg ko ci ak dugub fuñ bëgg àgg mën nañ faa luñ bëgg a def mën nañ ko def te yoon nga demee. ndax dama leen di wax si tubaab yi jël loolu yi wane mu ne nee naa ko woon lu kenn mos am la bëgg mooy man am na ko bi ñëpp man jël seen muy mbooloo moo xam ne am nañ xam-xam am nañ xel am nañ dossier am nañ alal am xol yoo ko def tey lenn ba xëy na sëb sëñ tubaab daal xëy na sëb sëñ tubaab daal kon nag ñooñu lu lu fi àggul rek moom jéem la jéem la waaye sëñ bi nag moom sëñ la loo xam du taamu nañ kenn waaye du taamu lu àggale kon nag nañ am pas-pas ak yéene ci defal sëñ bi waa dëkk bi dëkk bi yëlloo ma taw wala nga génn fekk mbedd yëpp raa hmm. te nit ñi fa dëkk yëpp nañ koy gis tey nag dañuy liggéeyal sëñ bi waaye bu ko def mu fay la waaye suñu bopp la ñu koy defal ndax tëliyee ñoo koy ñoo koy aw ndox ma ñoo koy naan mbedd yi ñoo koy jaar lamp yi ñoo koy ñiitoo kon nag loolu lépp buñ fexee ba am fa liggéeyal nañu ko suñ Tuubaa dañu am ak pay wala liggéey waaye nag sagal nañ suñ bopp sigal nañ suñ bi ndax Tuubaa dafa wax ne eh, àddina yàlla dong mooy mos a ak lu bëgg ak yonent bi ak alxuraan genn bëgg lañ mos doole muy Tuubaa Tuubaa daa wax ne li tax ñëpp ñu ko fenn xeeti yàlla yëpp lañ ko doon xëccoo bëgg ndax day pàcc boo xam ne suñ borom da ko bind sànni ko kenn mos faa yàlla lu yàlla ñëpp bëgg ko di wut suñ borom di pàcc bi dañoo tànn sa bopp ci ñu xeet yi boo ci bëgg ma féetal laa moom nee na suñ nee pàcc bi laa moom moo tax yëngu la participer fenn bu nekkee njëriñ bu ñu saafara day wax ne ni ma ko yóbbu Tuubaa ndax li ma war a def ci mbir mi su ma tabbee suuf si waay toll suuf nag képp koo xam ne yaa ngi ñu noyyi boo sañoon ndax foo mën a dundee boo faatoo ñu suuf la Tuubaa kenn suñ ba bu dee loolu nga bëgg biir suuf sa nag kuy noyyi ku ne ñu te jaam ba boo ko jaaree loo xam ne bu duggee ci suuf sa doo am gàcc. Mm. da ngaa xam ne rek nga taw suuf sa loolu la mën a am. kon loolu mooy Tuubaa ca kanam mbir la moom moo xam ne teel bi suñ Tuubaa yëpp ko bokk ñëpp ko moom li ko sëñ Moussa waxoon dañ koy tàmbali mbir la moo xam ne mën naa yaatu mën naa dellu ndax kenn ku ne mën nga ko dolli te la nga dolli ko yëg mooy yor ñaar kon nag loolu dong moo tax ci soññi ko ak leeral bu teel bi sëñ Tuubaa ba xam ne dañ xam ne du lenn taxu ñu du liggéeyal sëñ Tuubaa na loolu mais dañ gëm ne nag suñ boole suñ pas-pas suñ yéene suñ jox suñu alal rek ko ci lépp mën dañ doon mën a dolli suñ bopp ndax ñaar million mi mooy yooyu ñu xayma réew mi nag danañ kenn ku ne ñaata ñu réew mi deux milliards lay doon am na loolu yaakaar ne sëñ Tuubaa amul ëpp ci taal bi ñaar ñaar milliards. kon kon nag kenn ku ne xam ko. kon nag ku yaakaar sëñ Tuubaa ku ne boo gëmee la wax te ko di ci defal bay defal sax sa wëy ko yi jiitu woon bu ko kenn mën a jàppee noonu di ko defee noonu yaakaar naa liñ ci bëgg dana ko ci am. kon nag ñu ngi leen sant yéen waa historique yi ndax nañ seen bàyyi wax liggéey bi duggoon na fi jaaroon suñu sàmm ak nga xam ne moo nekkoon ak ñu wax suñu Maodo Diouf waaye mel na ne ni ñu ko bëggee woon dofeel bi de sonn na mu ngi bëgg nag bis nekk tey ñu foog liggéey bi teg ko ci loxo day sëñ Tuubaa yi fi nekk ñu yor liggéey di ko doxal. Mhm. loolu bis nekk tey mooy suñu bëgg-bëgg. ndigal loolu it mooy li ñuy joxe ci ndigalu sëriñ bi muy yéen ñu bàyyi bi ci loxo day ñu yor ko waaye daal di nos nañ dafa coordination boo xam ne wut nañ nekk ñu jiital leen di wut boobu door activité boo xam ne réew yëpp bàyyi nañ ca te kaw na kaw nos boobu nag gën a bëgg léegi ñëpp jaar nos boobu ñu nos waaye nag teew fenn fa ne ña fa nekk di fa jëw ñu sëñ ko mën a doxal liggéey ba kon yéen ñi nekkal suñu sëñ Tuubaa doon jëw ñu sëñ Tuubaa jiite mbooloo yi yéen na liggéey bi ci seen loxo lañ ko teg bëgg nañ ngeen soññ ci ndax liggéey la ne buñ ci amee liñ ci bëgg ndamul góor yëpp ndax tubaab am li mu a ne ko ko def ñu daal di yëngu ko def seen bopp loolu nag mënu ko def tey monsieur monsieur Ibrahima waxoon na soxna wax kenn deux cent yi ñaar day am nga am dëkk moom li ci wax ñaar yàlla defal na ko taw bi am benn nga am taw feex def ko amoo ko yàlla jëlee kon nag ñun tool taalibe yi nañ jot ñoo am taw feex def ko. sas bu seen kem kàttan sunu wax léegi li ci sëriñ Alaaji doy na sëkk Tuubaa ca kanam Tuubaa ca kanam yéen dafa mel ne ñun dama mel ni. liggéey bi dugg see. bi liggéey bi dugg see. gàttal nu ngeen ko lool. gàttal nag ko lool. dalal ko ci seen biir. dalal ko ci suñu biir. xam ne liggéeyu Sëñ Tuubaa la boo xam ne. xam ne liggéeyu Sëñ Tuubaa boo xam ne. Sëñ Tuubaa dong ko tax a jóg. Sëñ Tuubaa dong ko tax a kon nag yéen waa Jalwaa. kon ñun waa Jalwaa. ñu ngi leen di nuyu bu baax. sëñ bi neen mi ngi nuyu bu baax. di nuyu jëwriñ ji. di nuyu jëwriñ ji. di nuyu sëñ Alaaji mi. di nuyu yëpp di di fab nu yëpp taalibe yëpp teg ko ci seen loxo. di leen sant it bu baax. di nu sant it bu baax. di nuyu jëriñ yi fi nekkal Touba ci kanam. di nuyu jëriñ yi fi nekkal Touba ci kanam. ndax ñoom seen pasteef. ndax ñoom seen pasteef. ak seen taxawaay. ak seen taxawaay. ak seen itte ci liggéey bi. ak seen itte ci liggéey bi. bokk yi ñu ngi leen koy jottale bu baax. bokk yi ñu ngi leen koy jottale bu baax. liggéey bi nag ni ma ko waxee a ngi nii toog. liggéey ni ma ko ginnaaw borom a ngi nii toog jëmmam jii toog jëmmam jiitoo toog doy na sëkk ab soññee ci liggéey doy na sëkk ab ndax fu mu a dem ndax fu mu mën a dem ittey boppam ittey boppam fële la koy teg fële la koy teg wax fa yittey Tuubaa ca kanam wax fa yittey Tuubaa ca kanam Tuubaa ca kanam nag Tuubaa ca kanam nag képp ku yaakaar sëñ Tuubaa képp ko yaakaar sëñ Tuubaa war nga caa bokk war nga cee bokk soo ca boole sa bopp soo ca boole sa bopp bokk nga ca bokk nga ci. soo ci boolewul sa bopp. soo ci boolewul sa bopp. boo fekkee aju gi sëñ bi nga wax dëgg la ci yow. bu fekkee aju gi nga wax sëñ bi dëgg la ci yow. waaw bokk nga ci. bokk nga ci. ndax Tuubaa moom. ndax Tuubaa moom benn taalib mun cee mucc. benn taalib mun cee mucc. koo seen muy dem. koo seen muy dem. jàpp naa ni. jàpp naa ni. bu fa amul kër ci àddina yi. bu fa amul kër ci àddina yi. bu sañoon kër ëllëg moom Tuubaa lay doon. bu sañoon kër ëllëg moom Tuubaa lay doon. taalib bu fa mën a am kër ci àddina yi donc. taalib bu fa mën a am kër ci àddina yi da nga fa wut. te sëñ bi kat moom. te sëñ bi kat moom. gannaaw yàlla ak yonente bi gannaaw yàlla ak yonente bi. ak alxuraanul karim. ak alxuraanul karim. Touba dong lañ mës a xam ci lu mu bëgg. Touba rek lañ mës a xam ci lu mu bëgg. mës a am geneen bëgg. mës a am geneen bëgg. daana wax ne fu ngeen mën a séen. daana wax ne fu ngeen ko mën a séen. dama fa gan laa ko fa tukki. gan la gu fa tukki. waaye Touba laa dëkk. waaye Touba laa dëkk. te yàgg yàgg fa lay ñibbi. te yàgg yàgg fa lay ñibbi. am na lu mu yelloo. am na lu mu yelloo. lu am na lu mu te la ko fay te la ko fay def. na ko taalib yi. na ko taalib yi. kon nun taalib yi. nan delloo suñu njukkal. dëkk ba kat am na lu mu yëllootul. dëkk ba kat am lu mu yëllootul. taw ba noppi. taw ba noppi. mbedd yëpp taal. mbedd yëpp taal. Touba yëlloo. yëlloo Touba yëllootu ko. génn guddi dox. génn guddi dox. mbedd yëpp lëndëm. mbedd yëpp lëndëm. Touba yëllootu génn dox. génn di dox. mbali mi nekk ci ëtt mbedd mi. mbali mi nekk ci mbedd mi. Touba yëllootu ko. Touba yëllootu ko. ak yëpp nag yeneen yeneen aju. ak yëpp nag yeneen yeneen ci aju. kon nag. kon nag. nan taxaw ci loolu bu baax. nan taxaw ci loolu bu baax. ndax kat ndax kat. sëñ moom wàccoon na sëñ bi moom wàccoon na ak ñun. fii kat. fii kat. damay wax ci barab yu mel nii bu ma ci dem. day wax ci barab yu mel nii bu mu ci dem. ni leen sant yàlla war na. ni leen sant yàlla war na. sant sëñ Tuubaa war na. sant sëñ Tuubaa war na. ndax kat. ndax kat jàmm jii ngeen am. jàmm ji ñu am. ba ci tubaab yii fi nekk te gëmuñu yàlla. ba ci tubaab yii fi nekk te gëmuñu yàlla. jàmm ji ñu am. jàmm ji ñu am. alxuraan ji ngeen fi jàng. alxuraan ji ngeen fi jàng. xasida Sëriñ Tuubaa yi ngeen fi yëkkati. ak xasida Sëriñ Tuubaa yi fi yëkkati. loolu dong moo leen ko may. kon nag ku ne xam ne sëñ bi moom. kon nag ku ne xam ne sëñ bi moom. not na ay noonu. not na ay noonu. kuñ ne woon jamono dana mos a dem. kuñ ne woon jamono dana mos a dem. ba fa ab tubaab bu xonq taxaw ba fa ab tubaab bu taxaw. taalibe sëñ Tuubaa ñoo faa taxaw dafa yëkkati béy ci sëñ Tuubaa. taalibe sëñ Tuubaa ñoo faa taxaw dafa yëkkati béy ci sëñ am na jamono kuñ ko waxoon. am na jamono yoo xam ne kuñ ko waxoon. nga ne tubaab lépp. kenn rek moo leen mës a të. kenn rek ka leen mës a të. muy sëriñ Tuubaa muy sëriñ Tuubaa. daa wax ni. daa wax ni. damaa songoog ñoom. damaa songoog ñoom ci digg mbooloo mi ci digg mbooloo mi ñu ne ma fii kat say bokk fi ne ma kat fii say bokk fi ak say taalib ak say taalib boo fi songoo ak ñun boo fi songoo ak ñun dañ la sotle daan la ca kanam wajalilaahi maskani Touba baat misras mi abijaayi xayri ma nabaat